asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Correction de l'Astral maa ngi leen di nuyu euh, vidéo bi nag dafa am ñoo xam ne dañuy xaw a am difficulté ci xàmmee tableau yi obligo yi li ci mel ni direzione obbligatorio ak passare passaggio obbligatorio kon ma jox leen ci ay ay misaal rek tableau bi nga xam ne moom ngeen di gis nii euh, passaggio obbligatorio a destra la tudd lu tax mu tudd passaggio mooy xam nga ni fii boo doon def tout droit comme nii. munoo jaar ci kaw affaire bu jaune bi munoo jaar ci kawam jàll ak sa oto faw nga teggee ko benn côté te it fi féete gauche amaana sens interdit la oto oto dafay jaar kon yow ñu ne la léegi yow par force à destra nga mën a jaar moo moo tax kii tudd passage obligatorio waaye nag du directionné ndax changé wu direction jàddoo da nga jubal mais da nga teggi obstacle bi ne sa kanam moo tax tableau bi tudd passage obligatorio à destra bu ñëwee ci bii kii direction obligatoire adéstral lu tudd euh, kii da ngay jàdd carrément direction bi nga jëloon da koy bàyyi jël beneen direction maanaam da ngay jàdd sa ndeyjoor jël euh, du ma ñëw indi ay passage à sinistra ak direction sinistra mais jàpp naa ni ku ñu expliqué passage à destra ak direction da nga mën a comprendre sinistra bu ñëwee kon kii boo gisee tableau bii nii da nga war a jàdd sa ndeyjoor boo gisee tableau bii nii da ngay tegg obstacle bi ne sa kanam sa ndeyjoor nga koy teggee maanaam doo jaar ci kawam mais da ngay jël sa droite. bu ñëwee ci bii ki preaviso la dis kii dana la boo demee ba ci kanam incrocio ba fa nekk danga war a jàdd sa ndeyjoor eggoo ko fi ngay jàddee xoo boo xoolee ci sa kanam ci kanam tuuti tableau bi euh, ma jox leen ci benn ma ma ma ma encadré ko pour ngeen gis ko tableau bi nee na la danga war a jàdd sa ndeyjoor gis nga léegi tableau bii nii tableau bii lay indiqué waaw tableau bi ci kaw euh, kii bi préaviso bi tableau belle lay signalé comme bu fekkoon ngay daw lu bari kon da ngay wàññi xam ni man kat damaa war a jàdd moom loolu mooy njariñal euh, dire kii préaviso kon kii kii lay indiqué bu fekkee da ne ci strada extraurbana di daw lu bari boo gisee tableau bi da nga xam ni kat man bu ma doxee tu ci kanam tuuti danaa jàdd ba boo demee ba ci incrocio bi nag gis nga passage euh, direction obligatorio bi ci incro ci bopp incrocio bi lañ koy def fi nga war a jàdd subito fa nga fa lay nekk léegi boo ñëwee ci bii bii nii moom direction obligatoire diritto la maanaam dana la yow tout droit nga mën a dem da ngay jubal mooy tableau bii dana la yow tout droit nga mën a dem boo xoolee kon ñoom dañ laa defal sax exemple jox la misaal fii xam nga fii sens interdit la tableau yi sens interdit la fii sens interdit la kon noo mën a def yow nii rek nga mën a def tout droit waaw loolu nag ñu bàyyi ko xel bu baax buñ ko gisee ci ci quiz yi jërëjëf.